Et voilà immense plaisir euh, chers téléspectateurs d'aujourd'hui mais tu content de de voir à chaque fois donc c'est un plaisir encore une fois que j'aimerais bien y partager avec vous. Donc je peux même dire bonjour ou bonsoir. Ça dépend de bien ramener. Donc une fois c'est une émission du jour. Man Manio, c'est bien gars Il est très reconnu. Mais on va savoir deux choses à lui. Soit son vrai nom, c'est Ari c'est vrai. mais parfois y a un tonton les d' d'après acteur. c'est euh, série bi nga xamante ni infidèle donc di leen waxtaan ak moom ci beaucoup, ku bëree bëri bëri on va beaucoup savoir envers lui li nga xamante ni moom mooy mais lui, ñu

212 Yes Galsen 212 Yes Galsen 212. exactement ah. xam naa ni beaucoup nañu gens mën dem invité. pour waxtaan ak ñoom def ak ñoom entretien. Mhm. donc su ngeen ma tànnee pour waxtaan ak man moi je pense que c'est un.

xam naa ne dañuy ne kii dafa bëgg ko neex trop moo tax mu commencé foofu mais yow man foo ma commen foo ma foo foo ma ci laaj rek lu ma ci xam rek ak lu ma ci mën tontu incha allah dinaa la ko. ci donc dis-moi qui est benn nit la bu dëkk fii ci Sicap bi juddoo ci Sicap bi màggee ci Sicap bi simple sans problème nitu jàmm. dama koy wax parce que xam naa suma bopp bon xam naa dinaa am ñu ma sànni xeer naan ma saablu ful boppam mais man je sais que nitu jàmm nitu nit ñi laa mën a sonn trop ci soxla nit mën a sonn trop ci soxla jàmbur voilà Ali bi nga nekkee ndaw ñu ñëw comme que Aliou ci Aliou Diouf la ne nii pour l'instant dañuy ñëw sa enfance tuuti bi nga nekkee ndaw lan nga ñu mën a rappelé wu d'après yow Ali yoo xamante ni <laughs> dund nga ak say xarit lu neex trop. wuu xam naa ne bëri na. rappelé ben euh, bon ni ni ni est-ce que. en soit plus simple bonne fois nga fois foo bu simple. bon football n'a que la def. mën nga ko lool. du ne m'en naa ko trop. mais mën naa ko parce que ñun ñëpp bi ñu nekk boy suñu pare woon jungle football lañ doon dem defi. football naa nawetaan comme je dis je n'ai pas essayé Liberté. ok nawetaan. ban poste. de mon góol un ah, gardien nga woon. waaw d'accord. Euh, bi may nekk football na ba final ñu gagné ñu. Mhm. sañoo aussi dem nañ ba demi final aussi ñu door ñu. Mhm. est-ce que bi nga nek ndaw xalé bu terrible nga nga baam kaddu gi wala ku seddoon nga wala. ba mu naa wax parce que des fois su laaje deuguer bop ma deuguer bop des fois su laaje calme ma calme waaw je peux dire que ni dal la doon def dama doon basculer ci balance bi. amul ben xex bo xamanteni batay dang kay si oui. xeex naa xeex boo xamante ne presque mën naa wax ne que journée la parce que àtte nañ ma ma ñibbi si fii changer après dem naa delluwaat dem xeexaat foofu ki ma ko jotaloon xam naa ne tey su déggee li may wax nii dina dina ree bu bëgg dee parce que léegi ay quinze gaañ lañu ñu ñaar. ok ok waaye vraiment. ok donc si je comprends bien yow doo tooñ waaye ko la tooñ. waaw du ma tooñ. laal Aliou Diouf du ma tooñ mais ku ma tooñ sax man du ma ko réglé foog naa ne nit ñi ñoo koy réglé. ok parce que lenn moom xam naa ko.

foofu amé amee suma BFM dem fo ba terminal après ñew Sacré-Cœur collège Sacré-Cœur. Mhm. def aussi euh, école Fanaïcha. d'accord donc je comprends niveau 18 bi sori Ouais. dem ba terminal. arrêté wala da nga am bac continuer. dama arrêté. arrêté. dama arrêté parce que xam nga jamono

xëy na nii la waroon demee ah. ok waaw donc bi nga arrêté terminal la après la nga suivre ba tey ñu ngi ci Aly Diouf. bi ma arrêté suma terminal maa ngi ci suma yëfu bopp fii may wax ak yow nii maa ngi liggéey ci benn entreprise de bâtiment maa ngi woon ak Barthélémy Diaz ba tey sax maa ngi ak moom. xam nga ci mairie bi et tout. parce que ci gox bi laa dëkk lépp loo xamante ne luy defar suñu gox la. dama ciy bokk dama ciy dugal sama loxo parce que dama fi bokk.

ku xam aduna ku xam fi mu jëm ku xam li d'accord. ouais vraiment il est spécial je peux dire. il est spécial. ouais nit ku la. donc lan lañ mëna a ci Aly Diouf ñu tej Aly Diouf ñoom li ñu mëna xaar ci Diouf na comme bon. ñi xol lo xamanteni moy doxale suma gox kanam. Ouais. Parce que même, je peux dire que je suis dans le social. D'accord. Comme les malheurs 5. Je veux di dimbali nit, suis bëgg di jappalé ay Ouais. Mhm. D'accord. Donc, sans plus tarder, encore une fois, cher euh, chers téléspectateurs, Yes Galsen 212. Donc, qui m'a togal tay, Ali Diouf de son vrai nom. Ouais, surnom bi nga xamantene mom lay porte euh, série Infidèle muy Souleymane tonton Souleymane donc grosso modo rek tëjoon benn entre parenté bu ndaw te dañu ñëw nag ci walum Souleymane. Souleymane tonton Souleymane ça je peux dire tonton Souleymane la moo dugal ci cadre série. bon série je peux dire que ni li ma ci dugal suma jarbaat la ah Toumani. suma jarbaat la man ak yaayam ñoo bok suma jarbaat dans la vraie vie yaayam sama grande sœur comme je tiens à le dire tout le temps.

ma xëy la lendemain mu ne ma da ngay dem Evenprod sa demee nga laajte diw boo demee xam nga waxtaan ak moom après ma dem def suma casting. Mm-hmm. mën naa wax sax ne sama casting dama ko briefing parce que gars yi dama dugg si rek ñu rey xam nga kontaan xam ne kii vraiment. profil la quoi profil la ñoom xam naa ne gis nañ loolu. si waa donc bi ma ñëwee commencé def casting bi ñu rey affaire yooyu après ma dem.

ba nii may wax ak yow nii. loo xaaru woon. xaar ma ko woon ci sama àdduna te musuma toog ci sama àdduna xalaat ne dinaa war a mën a bokk ci benn film très sérieusement bu dee dëgg rek a tax may wax. seen famille amul kenn koo xamante ni mos na nekk acteur du jouer ci domaine googu ou pas. non sama famille je peux dire que ne man rek maa ci nekk acteur parce que xam nga paa yi ñoom mosuñu bëgg yooyu ñoom daanaka. ñoom pour ñoom seen àdduna yëpp jàng la woon. ñoom dañuy foog ne àdduna daal nit jàng rek la war a def am naa ay nijaay sax yoo xamante ni ay footballeur yu mag lañu woon. ok ben oui mais kenn mënu ci percer ndaxte famille bi gëmuñu loolu. en fait ñoom dañuy gëm na dal ñoom àdduna jàng la am say diplôme liggéey. c'est vrai c'est vrai waaw mais bon. donc euh, Tonton Souleymane ngay incarner benn rôle boo xamante ni man man sax damaa jaaxal man donc rôle c'est quoi yow yow en personne yow mi nga xamante ni yaa ngi incarné mm-hmm. jaaxul la. léeg ma am ci lu ma jaaxal mais du lépp parce que je peux dire que ne amu ci lenn loo xamante ne lu difficile la parce que comme limay wax rek nit xel lay am quoi suñ la expliquer li nga wara def rek bo muusee tuuti di ko wara a def. Mhm. parce que boko ko deful nit la ñuy jëli pour mu ñëw def ko donc après yow tu te dis que né lutax tax kii war ko mën te man ki man waruma ko mën. mais nekkul rôle bu difficile. non nekkul rôle bu difficile peut-être au début comme les ma la peut-être au début parce que j'avais pas compris mais bi ma defee ay ñaar ñett affaire xamné ne que fi affaire bi li la. dem. parce que rôle bi ngay incarné ci série bi je peux même dire ni que bokk sur les acteurs yi nga xamante ni nit ñi danañu bàyyi xel de tellement donc looloo tax man la est-ce que difficile parce que ngay incarné benn rôle boo xamante après sénégalais donc nooy dund ak ñoom. en fait bon c'est vrai que fii gars yi ils n'arrivent pas à faire la différence entre le personnage et la de personne xam nga dañu foog ne que soo joué benn rôle ci série bi boo génnee da nga ko war incarné.

message qu'est-ce lay jàllale. donc message buy porte ci lan message il may dit les ci série bi loo xam parce que fi lay tok suma buntu keur léeg nit garé wacc otoom wala nit romb taxaw nema ci série bi séquence bi ngeen def dafa melni man maa leen ko jox parce que man dama ko dund. ok donc je sens que ça fait plaisir gars mais di nga xamné que fofu producteur bi aussi. def na fa liggéey bo xamantene lu extraordinaire la. d'accord donc li nga tourner bari na lool mais fàttali ma ban tournage mo xamantene neex na lool. ci ci série bi. ci série ba parce bo xamantene yow sa séquence la yow. séquence bo xamantene neex na ma neex na trop. séquence bi nga xamantene man neex na ma moy bi astuloo be fekke ma ci bureau bi di ma nan yow yaa vundang suma xarit bi. ya yaa vundang suma xarit séquence bobu neex na ma parce que mot bi en fait man daf ma bête xaw ma ba reetaan je pense def naa ko deux wala trois prises. ok parce que moo bi xaaru ko parce que moo bi xaaru ma en fait. parce que fi ngeen bal ma ci cadeau bi ñemewu mo wax loolu sax bo si xee ak dara jigen copine am xam nga bu ñëwee dina yow def nga li sama. Ah, ok da kaa rafetal. da ngay da kay rafetal. ci xam nga. je comprends dañ wax booy dañ ma koy tooñee ah boy nek ci école yi wala ay magum jëm sax naan la ay eh, tonton Souleymane yow yaa vundang sama xarit bi donc mo bi daf ma bett man moo bu ma bett la mais après nit ñi xam nañ ne que benn message da doon jàllale. ok je vois. parce que nag dañ koy dund ah. Mm-hmm. dañ koy mm-hmm. dund da ngay am sa petite sœur wala sa grande sœur di doxaan copinam mm-hmm. te moom du ko xam parce que dafay jàpp ne que. kii nii mu ma jàppee man mii sëram noonu la jàppee sama xarit bi fekk ñaar ñi bu ñuy gisante yaw doo ko yëkk mais euh, tonton Souleymane rôle bi ngay dund ci biir euh, série bi est-ce que tey mënul dem ba nekk lu naturel ci yow. non je pense pas loolu. am nga tën mën nga tënir doon sa bopp. mais oui su ma xasee ba tourné su ma génnee ci mbedd mi ci sama activité lay nekk du ma dellu siwaat sax. ci xanaa bon peut-être ak nit ñi ma xam ak ñi lay tooñ ci mbedd mi affaire yooyu ñooñu xëy na ñoom ñooy dellu ci wax bo boobu it mais bu ma xasee ba tourner ba génn mom damay damay damay damay jall damay jall ci leneen quoi. ok waaw donc tu comment tu vis avec le mot succès. non non non succès man mom yenn wu ma ko gàddu wu ko xam def ma ko dara quoi. sonal la tamit. non non non lu bon ko ci sonalu ma quoi parce que boko ko sonalee boo ko rek mais les filles sont quand même. non man dama am jabar. oui am mais xaaral di xaar deuxième ou non c'est dañ pas <laughs> mais mais sais, d'après nga comme Ben acteur Mohamed xamante donc succès et force que les filles viennent. mais les filles, c'est quand lañ ñëwul. mais là, actuellement, je parle avec toi donc bu tu es là, tu war nga Tu es tu des sœurs waa nga téere après voilà leneen luy ñëw bu ñëw. non mais non de toute façon xam nga tey soo amee sa jabar respecté ko xam ki nga yor xale jigéen bi ñu la sonal parce que ku ci xam nga sama fan sa nga xam nga tey feeñ ci télé bi ñu ñëw ne la dama la bëgg dafa yomb bëgguñu la. lu tax nga ni bëgguñu la. dañuy wax góor day xemem jigéen. waaw oh. day xemem góor. fan nit yoo xamante ne dañu bëgg bu ñu toogee fenn di jaay ne dama xam diw. ci hmm. seen téléphone woo la pour wone ne xam nañ la pour seen copine yooyu xam ne que yow diw xam na diw am na ñoo xamante ne dañu bëgg nit yu siw ci loolu la ñuy dox. c'est vrai yi ñu ngi ànd ak ay nit yu bëri yoo xamante ne xamuñu seen tur. Hmm. oui. je comprends. te pourtant dañ leen di fréquenter matin midi soir. Hmm. fii rek ngay dégg wala maa fii.

boo fi vendredi da ngay que mais fii est-ce que amul tout wala affaire est-ce que tu as la téléphone. si dina yomb trop ci yow. tu ma woo da nga cher. Comment numéro ma jox la mais il y ci des gens dépasser les limites. Il y ci des gens qui dañuy am sa numéro téléphone toog ba yenn heure ñu bëgg la message comme je t'ai dit tout à l'heure am y dañuy bëgg a won que xam diw wala di waxtaan ak yow ay pour soo ko après après ñu capturer ko wala ñu jël message bi nga leen envoyé transférer ko sen xarit pour waneen le que kii li muy incarné ci série bi ak li muy dund du ben ku nek da nga am sa vie. d'accord loo moomal sa bop lo xamante ne ça n'a rien à voir ak affaire de série ak affaire de lolu mhm. acteur bi bubu la. bo tourner ba paré dang kay koy nga retourner dans ta vraie vie. Mhm. amul leneen donc euh, sans plus tarder encore une fois ba tey gars yi ñu ngeeg euh, ki nga xamante ne alliance euh, tonton Souleymane donc tonton Souleymane série nekk na lu am alal ou pas. ñaar yëpp a ngi ci am na amul. dafa toll. am am bi ça dépend ci nag lan nga jàppee am parce que série bi daf lay apporter leneen ci biti ah, loo xamante ne xaaruloo ko woon. te sant nga si yàlla. oui man dama mës di sant yàlla. non oh, ci bi. ci série bi waaw ça va. ci nga amee oto. non bi may am oto xalaatuma woon sax euh, nekk ci ay série comme je te donc ci série bi loolu ci am am nga ci kër. non tollaguma foofu. kon série bi fayagul. ah fayagul. bi mu ngi fay. mais fayaguma loo xamante ni mën naa ci am kër. donc li muy fay fu mu anu anu bëgg naa xam man. non li muy fay. en <laughs>

d'accord ñàkkuma mais tamit amuma loo xamante ne tey mën nañ joxe ne nit ki milliardaire la déedéet. te teew yaa ngi nekk sa liggéey yaa ngi nekk en même temps acteur. waaye yàqaluma dara su ma wanee tournée ji damay wax ñi ma nekkal dama am tournage tey. d'accord ban heure heure bi ban heure laay pare moom xaw ma ko dinaa xam heure bi may dem mais du ma xam heure bi may pare. d'accord en acteur tamit peut-être bu ñu mënul jot ñenn ñi yow di ñu ko mën a mottali. mooy ne que ñëpp nee nañ Evenprod moo tax jigéen ñi xawale gi ñeme di def yenn chose yi nga xamante ne après sur les réseaux sociaux loolu loo loo ko gisee. non ça dépend rek nit ku nekk rek ak ni ngay gisee nit ku nekk ak ni ngay fonctionner xam nga tey def-def dafa yàgg ci àdduna. Mm-hmm. ñun dañu juddu fekk ko fi. damay def parce que diw mii lii la def moo tax man mii tamit dama ko war a def. loolu amul. Mhm. xale jigéen yi dañ leen di yar yar yu baax ci kër yi ñu génn ci mbedd mi mel na neen xale yu góor yi dañ leen di yar yar yu baax ci kër yi ñu génn mel na neen donc affaire yi man je pense que ni ci nit ki lay doon. te am na rôle yoo xamante ni boo bëggoon jël benn jigéen bu bokk ci benn famille wala am yenn éducation yi nga bëgg ko defloo mais elle va te dire carrément ne que ah man di lii mënuma ko def. ok parce que m'a dignité permettre ma man ma def yi gars ils vont te convaincre. mais vous me comme jigéen Even Prod bokkuñu si parce que d'après les mots que vous vous utilisez c'est tellement grave. non mots yi di utiliser si série bi séquence là texte là na le lii ko wara dougal mais ni dañ koy comme si que naturel oui mais dang kay dougal pour ni ko seetaan mën a que li mo am ci aduna bi. mais mënut a rafet. boo ko rafetalee xëy na am na ñoo xamante ne duñ ko comprendre noonu. mais salon bu papa toog yaay toog doom toog ñëpp toog nga jaar si yooyu. tey dinaa la wax ne Evenprod bu ñu tegee film bi dañuy bind mois de seize ans donc dañu jàpp ne ku am seize ans jëm kaw magum jëmm nga. mais série bu toll ni Evenprod série bu neexee ni Evenprod moins de 16 ans man chiffreusement su 16 ans peut être maintenant c'est concentré wu. man damay tok fi xalé yi di jàngee école Sacré Cœur wàcc fii. exactement xalé yi amuñu sax 10 ans. légui ni sànq da ngeen tel da ngeen naaji bu ngeen teeloon ñew da ngeen di gis fi ñaari xalé yo xamante fi fii lañ taxaw kenn ki ne kii moom moom parking bi ci kii bi ma woo ba ñew man leen yeen da ngeen di seetaan film bi ñu dañuy seetaan infidèle. exactement fu ngeen di seetaanee infidèle ñu ne suñu kër. Mhm. parce que fi en fait Sénégal amuñu habitude ne xalé damal ci néeg bi nga tok fofu lii doo ko seetaan. da ko koy aaye. mais xale bi dafa am téléphone Android. dafay télécharger. bu koy seetaan doo ko yëg wala bu demee école am ay xarit yoo xamante ni dañu am téléphone dañ koy seetaan en groupe chaque jour nga jaar ci buntu école yi gis xale yi beru def groupe. nekk ci seen téléphone boo demoon jege leen xool li na ci téléphone bi seetaanuñu sax infidèle lu ko gën a